asalaamaaleykum wa rahmatullah waa senegal maa ngi leen di nuyu uh, di am mbégte ngeen baal ma nag dama am benn petit problème boo xam ne mënta ñàkk moo tax ma indi ko ci péncu mi uh, di ci sàkku ndimbal nag bu baax uh, jafe-jafe bi nag ñu may ma tuuti rek déglu ma ni ko boroom réew mi di waxe may leen ma deux minutes kon ci seen temps Euh, damaa nekk ci biir kër gi ak sama xale yi ñi nga xam ne ñoo may liggéeyal samay ndaw lañ ma sonn lool ci semaine bi ñu nekk ba yàgg coono bi leen lenn ko waral nag sëriñ bi da ngaa war a seetal diw sëriñ bi da ngaa war a seetal diw sëriñ bi da war seetal diw ba wax ji xaw maa sonal lool ma ne xaaral ma génn kër gi dem noppalu ci aw ma benn pexe nag amul fenn yit fu ma war a dem pour noppalu fa. heure bu ma génnee rek cours bu ndaw wala ma def li may def ñu ne ma sëñ bi kii nangam la de dañ ko war a seetal de man di leen waa baax na xaaral ma ñëw <coughs> dem seeti sama wóllëre woowu pour xaw a génn tuuti xam nga man damay xaw a làqatu rek ma dem këram mu ngi fii booru Kër Massar bëgguma tudd tur wi ndax yaay yi dafa am lu ma def te fokk ma waxaale ko ci waxtaan wi bi ma demee na ko yaaram tey damaa ñëw fii làqatu pour dallu damaa sonn lool te xale yi dañ may sonal ci ay seet yu bari ma bëgg sax bu doon nàngam la ma tëdd fii noppalu mu ne ma amul benn problème bi ma toogee mu may nuyoo lekk way juróom bu jigéen bi maître bi ñëw na ma ah, yow de sama soppe nga waxtaan ak man nuyoog man na ma yàlla xam ne na de sama tànk yi day metti moo tax bëggumaa joxe turu sama xarit boobu sama tànk yi day metti te damaa bëgg nga xoolal mbaxam xam ab liggéey la wala dañ ma koo def wala nàngam ma ne ko waaw baax na dinaa ko xool mu ne ma nag jàppale ma ci nu mu gën a gaawee sama xarit bi may ma café man naan ma ne ko yow de duma fi mën a yàgg ndax la ma jëlee sama kër moom laa fekkaat fii te damaa bëgg a noppalu mu ne ma déet waay damaa ah, de xam nga rek ñoom ndeysaan tawat jeeg te dañoo am yaakaar ci yow ma ne ko tey de parewuma pour seet nu may def ba noppalu mu ne ma am na sama wóllëre wu nekk fii tout pere nañ fa dem man nga faa tëdd tuuti làqatu noppalu ma ne ko ah mu ne ma waaw benn kër ñaari kër ñu dugg ci kër xarit bi bi ma duggee ba toog rekk waa ji daw dama ma kii du sëñ Mara ma ne ko man la de cheikh bi mu ne ma ah, yow de lii yàllaa ko man ma ne ko ndeysaan ma nuyoo moom jàmm sante toog balaa ñuy wax dara mu ne ma damaa dugali këyit moom waa ji de senegal <laughs> maa ngi ci problème damaa dugal ay këyit bëgg nga xoolal ma ko ba xam ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko waa baax na bu xamul ne moom damaa ñëw këram pour làqatu di daw ku ma seetloo ma ne ko waa baax na mu génn nag di xam nga rek taalibe la dëgg ay ber nekk indi ay kafe xeet googu sama xarit bi damaa waroon a tudd tur bi sax waroon waaye nag am loo xam ne doo tudd lépp mu ne ma léegi nu ñuy def ma ne ko ah jaaxle tax kay ma ñëw ci yow yaa ma waroon a wax nu ñuy def mu ne ma bàyyi rek kon mu may ñu ndox ñu naan nga ne ko nangam rek dinañ fi ñëwaat wala boo ko mënee xoolal xoolal ko ma ne ko waa ah, baax na léegi ma jóge ci kër xaritam bi ñu delluwaat ñoom seen kër ma ne ko du ma mën a dugg te bu ma duggee seetal meer bi bàyyil ma yoxosu ndànk bi may ñëw fii sax dama làqatu jël taxi bu ñu àggaat ci kër gi bàyyil ma jël beneen taxi fi ñuy taxaw rek yàlla dogal benn taxi ñëw ñu upp ko ma ne ko yaaram bàyyil ma dem mu ne ma kon xaaral ma jox la dernière solution balaa ngaa dem bëgguma sa yaakaar tas ma ne ko luy solution bi mu ne ma am na sama xarit boo xam ne nekkul ci réew mi nag ma ne ko jaral na ma ko de même bu doon benn ñaari fan ñett ma noppalu ba sama ma doog ñëwaat tàmbali liggéey bi ndax damaa gëj a lool te damaa fi mu ne waaw mu ne ma xaaral ma woo ko bi mu woowee xaritam boobu nekkul sax ci réew mi man naa joxe réew ma mu ngi nekk fu ñu naan Maroc ma ne ko man de bu may am juróomi fan sax noppalu ñëwaat ci réew mi booba ñu ngi taxawal taxi bi ne taximaan bi sax xaw naa yàkkamti waaye dama ne ko may ma rekk bu ñu noppee dañuy dem ñu woo waa ji téléphone bi sone ba ñaareelu yoon mu décroché bi mu jëlee mu ne ko diw moo la soxla mu ne ko ah xam naa diw de mu ne ko baa jàmm la mu ne ko damaa bëgg mu ñëw foofu même bu doon juróomi fana mu noppalu xamul kenn ci dëkk bi nag mu ne ah loolu de dana ma neex lool anamu mu ne ko mi ngi nii taxaw mu ne ko paas ma ko bi mu ko joxee téléphone bi ñu nuyoo mu ne ma alhamdulilahi rabbil alamin ma ne ko ah sant yàlla cheikh bi ñu jàmm sante bi ñu jàmm sante ma ne ko maa bëgg a ñëw nag ngir noppalu si mu ne ma lu ma yàggoon a bëgg la mu ne ko alhamdulilah mu ne ma man ak sama soxna woo nañ la ba sonn mënuñu laa jot damaa bëggoon nga seetal ma waaye xoolal tay li yàlla di def ma ne ko ah lii de moom taw tawféexi suñ boroom la dégg li ma wax mu ne ma maag sama soxna woo nañ la ba sonn pour nga seetal ñu yàlla xam na ne histoire bii may nettali nii la demee te histoire bu vrai la bi ñu coupé sama xarit bi dafa reetaan daan ne ma comprendre naa la xam naa li ngay daw ma ne ko nag léegi man fan laa jëm mu ne ma ah xaaral ñu xool ba xam ma ne ko taxi bee dafa yàkkamti te fokk ma dem kër ga bàyyil bu ma àggee woo la téléphone mu ne ma amul problème ma ne ko tàggul ma maire bi mu ne ma dinaa la ko tàggul ma dugg ci taxi bi ñuy daw ñuy daw ñu ngi jaar ci korniis bi taximaan bi damaa dugg rek toog yàlla dogal sama téléphone sone ma wuyu bi ma wuyoo taximaan bi na ma kii du diw maa ngi koy tooñ sax na ko déedéet du moom ba ci yàgg ba may dem bay bëgg a yegg sama kër ma ne ko moom la ma ne ko ana xàmmee di ko tooñ mu ne ma ah kat damay seetaan kii yéeg dama lay gis léeg ci daan ma waa yow combat bi loo ci gis mooy wax ba tey am na nag lu ma ko ci wax ne ko ah combat lii laa ci gis mook Ama Balde nangam laa ci gis lee mu ne ma ah? ma ne ko waaw ba tey taximaan bi de xool leen li may daw ak fi ma dalaat. mu jekki-jekki ba ma agsi sama buntu kër mu ne ma waa léegi loo gis ci man <laughs> ci Sénégal taximaan bi de nga xam ne man euh, bi mu nee ma loo gis ci man ci laa nee nag man nag fi ne dinaa defu video képp kuy soppeeb Serigne Mara bu ngeen ko xamee bu ngeen ko xamul sonn naa te jaaxle naa te lenn rek moo tax ma def vidéo bi lan mooy solution bi vidéo bi gudd na waaye nag dama jàq moo tax ma leen di laaj luy solution bi yàlla xam ne ne histoire bii dama koo tooga tooga tooga tooga ba sonn mënuma koo ñàkk bañ a génne moo tax ma ne dinaa ko laaj sénégalais yi génn ko ci sama xol xaw a sax féex tuuti xaw a sulaase wu nekk ci jàmm waaye maa ngi nuyu samay soppe di nuyu ñëpp lu ci waaye am ci njàppal moo xam danga may dimbali moo xam danga may dolli moo xam loo may wax ba xam danaa fa jaar man amatuma pexe maa ngi ci lii te lii laay dund gaañi yàlla nañu yàlla defal sutur ak tawfiix waaye sëriñ Mara sonn na lool fii amaani la shukran ngeen jëf wax leen ma ci commentaire yi ay waaye lan mooy seen seen xalaat xale yi danañ ko noté danañ ma wax li ngeen ci wax wax ma it li ngeen wax bu ko defee ma man faa jaar Sénégal nag xamuñu ko sonn xamuñu ko yéen da ngeen daal balaa ñoo xam ne sa waay la rek nga dem ba ne këndëng ñu doo ko wax ne bu ñu teeloon a yëg dinañ ko sax évacuer jar na nag jar na maa évacuer fi mu ne moom fu ma jëm laa xamul nag te fa ma jëm man ban buñ déggul olof sax baax na jërë ngeen jëf gaa yi ba fan yi